gis tey rek sama xel dal na voilà lii ma gis nii tey jii fii ñu taxaw xale bi sama xel dal na voilà ñun ñëpp a jóg nag pour ñu ñëw taxaw booy bi comme niñ ko defee ci affaire Abibulaay parce que tëraay bi yàgg na yàgg na trop xam nga ñun soo gisee ñu gën a yéex dafa am ay yi ñu doon dégg ne daa am diw bu ko jël en charge mais jàpp na ko du woon da ko doon jàppale rek loolu kon tey mortala bi moo njëkk a jóg woo ma téléphone muy Mor bi ñu gis li muy def Pikine muy def pikin ñun ñu ngi koy gis mu ngi si jàpp bu baax a baax a baax te dafa am sax ñu des ñun fu ñu xam maak moom dinañ fa dugg pour taxaw xale bi waaw di taxaw xale bi lii daal maa ngi rafet lu sama gars yi ma fekk fii pour ñu ñëw liggéeyandoo ki ma ciy woo kenn la man muy Birane Ndour bugg bugguñu xaalis bëgguñu dara dama bëggu nga jël xalé bi nga yobul mako France mën nga ko nga ñëw jappalé sa frère so mako défalé rek défal nga ko défal man nga ko défal muy biran la ci wo ak keba kanté xam nga ak autorité pikine yépp cierno ndom timbo amadou jara pam ndong isaka job ñu ngi wo ñëpp ñu ñëw tek ci xalé bi loxo wax dëgg yalla soxla nako waaw soxla nako ñun ñëpp may wo nak pikine yépp na ñëpp toog ñun ñëpp ñu dajaloo waxtaan ñu taxawu xale bi gaaw. waaw ñun gannaaw bañ sant yàlla ba noppi julli ci yonent bu tedd bi sant suñuy ñaari way waajur euh, kër gi moom dama naan sama kër la parce que du ma fi du fi jóg euh, jibi moom ku ne xam na ni tëraay bi yàgg na li fi li li gars yi wax rek laay waxaat tëdd bi yàgg na woote nañ woote nañ lancé nañ appel gis nañ comme ni mu ko waxee ku ci mel ni Cheikh Kouyaté dugaloon na ci loxoom bu baax a baax a baax a baax dañ koy ñaanaat rek mu gën a dolli parce que li may wax chaque jour rek def lu baax moom jarul nit di ci sonn wala di ci taay parce que yàlla suñu borom moo koy fayal boppam. donc lii nag ñi fi ñëw tey di social pikin di ay doomu pikin di yeewoo pikin yàgg a gis tey ay doomu Pikine yu tëdd feebar te du ñu am ku leen ci mën a jàppale xëñ na ku mel ni jibi sax wala sama sama càmmiñ ba dem muy Jules Balde Junior yàlla na suuf oyof ci kawam. xëñ na dañoo am sax ñu leen waxal ak maestro Biram Ndaw mais bari na ay doomu doomu pikin du ma ne sax Pikine mais Sénégal ñoo xamante ni tey dañuy tëdd feebar te duñu am sax lu ñu fajoo donc loolu appel bi ñuy lancé dañ koy lancé tous les autorités moo xam ñu nekk Pikine nag ak ku nekkul Pikine mooy nañu gëstu doomu aadama yi rawatina nag autorités yi nga xam ne dañuy yeewoo biir Pikine nañ leen jàppale ñun amuñu lu ëpp ñii te nit nit mooy garabam doomu aadama duñ ko lekk duñ ko naan nit njariñ lañ koy doyee te ñi fi nekk dañoo war a gëstu population bi ku tëdd feebar boo mënul sax ñëw di ko seet si benn dërëm wala 1000 francs bi ngay yëkkati def ko ci yéene la amaana sunu borom tey am na ku muy xaar mu dugal ci benn téeméeram sax mu yëkkati ko kenn xamul ñun suñu xol bu rafet lañu am rek ak suñu yéene ànd kook ñoom la Pape Mbacke Souran Pape Sarr Bayla Lobaat xale góor yi ñëpp jóg Xaadim Mbeng ñëpp dugal ci seen loxo dugal ci seen dërëm Demba Jama Adja bii tey xale yi ñëpp jug taxaw ne suñu càmmiñ bi tëdd feebar suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm dañuy yëkkati ñëw soutenir ko ndax fii mu tëdd mu mën fee jóg yàlla nag mooy wéeral dañuy ñaan suñu borom yàlla na ko yàlla yëkkati mais pikin gi yëpp lañu woo doomu pikin yëpp Moustapha mi ngi nii toog xale góor yi ñëpp soq alaaji mbay gis nga leen boobu ba tey dawuñu dara dawuñu dara te defe naa ne nit lii ñuy def nii defaluñ ko kenn suñu bopp lañ ko defal kon dañuy lancer appel rek pour nañu ñëw ñu jàppale man nag sañ naa jëmale sama appel ci benn nit boo xamante ni muy Doro Gueye Doro Gueye dama koy woo bu baax a baax a baax a baax chérie Clara li tax ma koy woo nag moom xam na man xam naa te bu seetaanee dina xam na ni moom xam na man xam naa parce que lu baax laa ko gis muy def def ko aussi jëmale ko ci man jëmale ko ci ay doomu aadama kon su ma ko woowee rek parce que am naa fu ma ko teg moom rek laa ciy tudd woo ko ngir mu ñëw tegal ma loxo sama càmmiñ bi tëdd feebar yàlla yëkkati ko fëgg boppam dama ko laaj léegi ajaratu mu nekkoon ajaratu Marème Faye Sall mi ne ma loolu dama koy bàyyi ci loxo Rama Mbacké waaw ji bi dafa xër rek di wax loolu ne bàyyi na ko sama loxo première dame moom Marème fay Sall kooku fu ñu dékkee micro moo xam social moo xam lu mu mënti doon sañ nañ ko cee woo parce que daf cee nekk te li mu nekk nag buñ ko ci woowee defe naa ne ni woo nañ ko ci loo xamante ni miin na ko te tàmm na ko première dame dañ koy tàllalaat suñu loxo ñun amuñu lu dul ñoom. ñun bu suñu bët xonkee ñoom la ñu war a woo parce que ñoom la ñu am. xam nga gars yi ni ñu mën a jàppalee madame Faye Sall te yàlla tax Amadou Sall su gisee lii dina xam man mortaala maay wax seen papa ba mu soxlaa élection fii dañoo ñëw jàpp ci te yàlla tax te pourtant ñi ngi nii amul cent franc bu ñu jox ñun loo xamante ne dañ doon xaar intérêt personnel léegi ñoom intérêt personnel bu dee am na ñu war a ñaan ndimbal nay ñëw defal ñu ko ci suñu rakk bi ñun buñ ñu defal dara. nañ ñëw jàppaleel suñu rakk bi ndax Macky Macky Sall ba muy ñëw ci campagne yi naan Pikine sikil génn ma barki salaati fatiha ku dee ak sa bàmmeel Thierno Ndomba doy na ma seede Pam Ndong doy na ma seede Timbo doy na ma seede Isaaka Diop doy na ma seede xam na ni liggéey nañ ci liggéey bu extraordinaire boo xamante ni amul kenn ku ci mën a taxaw ne ñii jox naa leen mille francs ne ñu dimbalil suñu rakk ji tëdd cinq ans du benn fan du ñaari fan du ñett fan chaque jour piqûre 7500 lay piqûre loolu noonu milliardaire sax bu ko doon def bu yàggee mu kaaw sàqantuma laa ñoo xam ne dañuy taaba taaba am grand frère bu nekk Europe lu mu liggéey yónnee ko ay pikiir na ci gars yi jàpp te yàlla tax lu tax ñu war ci mën a jàpp damay woo góor gi si Dieng laay woo bii paa du ma woo kenn ku dul moom xaw ma ko musuma déggante moom téléphone ci ay image laa gis bi muy def ak maam Fatou Ndoye li ma lay wax ni sori yàggul dara mu ne nit ki kat boo koy dimbali da ko war a jël luy réussite doomu aadama da nga koy jëlee A yóbbu ko B. na ñëw jëlal ñu suñu rakk ji a yóbbul ñu ko bee mooy maanaam pour mu mën a faju nañu ci dimbali ak sportif yëpp Cheikhou Kouyaté lu tax ma koy kii kenn waxuma liiroo ngi nii sama ndeyjoor Cheikhou Kouyaté nii nii may wax ak yow sax yebale na fi xarak lépp kon kooku mu ngi ciy jàpp ak leneen ak leneen. yàgg na trop 2016 ba léegi billaay wallaay 2016 ba léegi mooy loolu non dem na ba defatuñ dara billaay wallaay wa taalaay dem na ba defatuma dara. billaay maa koy yëkkati chaque jours ba mu tëddee ba léegi maa koy yëkkati dama arrêté sama licence dama jàng waaw 2016 ma teel ko arrêté ndax sama mag boo xam ni bu ma ci man ci ku ma topp daa dugg France 2015 même pas un an ji bi def choc ma teel a arrêté sama yaay amul doom bu jigéen jibi mii moo doon bale di fobeere di lal man may dem marché ñun sama ya amul doom bu jibi lu si bari moko don def mais man dama do jang ko ko mom teyer la man ma do jang leneni leneen ni leneen yu sew sewani man ma koy def moy lol mu def sok nak nek hôpital xam nga ma ne xara ma teg lepp commencé bañatum mënatuma voyage mënatuma dem fenn teg lepp parce que à tout moment goudi gi dama koy bëccëg noonu ba tey suba rek a si mujj tey te damay guddee tëdd mais sama yaay bu ma fëggee rek damay jóg mooy loolu sama yaay tamit di jàmbaar mook ay sëram mooy loolu sama yaay jigéen bu mun góor la billaay wallaay wa taalaay man saa yu ma xoolee rek damay dem bay xaat mi ma ko gisee rek damay motiver waat mooy loolu bari Serigne Saliou jibi tamit gëm yàlla moom loo wax mu andiwaat la mooy loolu gars yi tamit ba ba jibi tëddee ba léegi gars yi bàyyi wu moor heure mortal heure bu nekk laa ko woo des fois damay rusat ci sax wala jibi ne ma noo bu ko déranger borom kër la tëdd na wala dara billaay ñoom rama makee gars yi man daal gars yi ma seen fay quoi billaay wallaay mais tamit am na kenn koo xam ni mënumaa wax ba daaneel te du ko tudd muy ndom ba Cheikh Kouyaté capitaine équipe nationale luma la ni sang dama mo téléphone néma li jarou muy ki depuis ba bam yégué choc bi ba légui la avant confinement bi lu ko yëg ci biir confinement bi lépp mo koy def chaque wèr lépp lu war ci kër gi da koy def ba ci ni ni rek xaru tabaski atay sak saaku soble kii laa demoon jëli billaay wallaay Cheikh Kouyaté capitaine équipe nationale Keba Kanté tamit pap sar sa yu ñëwé Kéba ba léegi day joxu jibi ak Cheikh Ahmed Tidiane Anne Cheikh Ahmed Tidiane Thiam DG Azeroute moom tamit noonu billaay waaw mooy loolu waaw man moom comme que Marème Faye Sall dama koy dégg su ma ko gis. mais damay dégg geste yu baax yu muy def ba pare ku ñuy àndal tamit suñu man ku may woowee son excellence muy ndom ba ñoom ñaar nii damay dégg yu muy def dañ koy woo rek di ñaan muy Marème fay Sall Matar Ba ah équipe nationale seen njiit ñoom ñëpp Cheikh Kouyaté lay moom laay dénk affaire bi moom xam naa dina ko gérer ay ñoom Gana Gueye ak Sadio Mané ñoom ñëpp Cheikh Kouyaté wax dugal na vidéo bi Instagram ñoom yëg nañ ko Pape Abou Cissé moom ñëw naa ak téléphone yu ñëpp am na lu mu def ah may woo tamit mbëru Pikine ñoom tamit saa su ne dañ koy ne muy Eumeu Sène Ama Sokh booy ñaa ba ci mbër yu ndaw ndawaan yi ñoom ñëpp saa su ne dañuy dañuy gëstu jibi lu bari ku ma si taxante loolu ku ma ci déggal mune ma saway ana boy ma ne ko léegi naaj mu ngi tane mu ngi ci jàmm mais ni na dañuy ñaan dañuy ñaan ñaan rek lañ am dañuy ñaan ñun wuñ ku ñu jox xaaliss mais jibi punkol buñu ko mën yobul europe mu dem france fa mu def opération bi ndaxte xawma nan ja borom la posu arona ja xawma sire ja waw amono lu def yabal ñu clinique bi mu yëg xaaliss bari joxe fa fa lañ defee IRM def analyse def radio lip bañ wo bam waron waroon dugg bloc pour ñu opérer ko mais au niveau de la cou yax bo fu colonne vertébrale commencé yax bi dafa surux ndax dafa teud ba pal lé buñ ko opéré yi plate métal di dem loolu non amul fi professeur cham ci bopam ci ko sétané dina ma gis ndax ma fa andi won ci mune li ni wéñ bi amu fi France rek la mëna dem à l'extérieur foofu rek la mun a dem pour ñu def opération ndax lu muy gën a mun a tëdd nii noo du ñu arrangé ndax foofu day dem di gën a paal ndax tëdd baa ko gën a yóbbee loolu waaw dañuy ñaan rek autorité yi mooy loolu muy muy Pam Ndom Isaaxa Ablaye Timbo président AS Pikine Modou Gueye gars yi même Modou Fall ancien président Pikine ba ca États-Unis ñëpp ñoo ngi leen di woo dañ leen di ñaan rek forcé wuñ kenn ndaxte nit kenn duko lek, kenn duko nan soxlo nga koy doye waaw. ah ngi koy dund ak mom di sante Yalla rek doole diko santat sante sangi sang-sang yi waaw ah, te xam ne ku dul may sa bopp lo am da ngay jël. Jibi sar toray bi yag na lol lol waye nak dañ koy sante yalla suñu borom di ñaan yalla sa su ne Yalla fa mu munta joge ci mbiram yalla na indi cause ku koy jappale ba mu dox waaw ya. oh, waaw ko indi ci aksi accident la def da don dem shawal andak ak ber. mbër dem ba ñuy ñibbisi Sinja la sen 4 def tonu moom rek moo ci blessé moo ci am rachi moom kese ñoo ñëw fi ay timis wax si ko pam marik sama taaw bu ci fajar gi ma julli ba pare pam mari feug mané ko tejuma buntu mu dugg mané ma ñom ah, ñoom de wa ginnaaw ray eh, ñew nañ fi né ji bi dafa def accident mo ci gëna a mi ngi poste de santé bu nekk Mbour na da di jóg man ne rabbil alamin ndax ñun ak accident ak dé ñoo and du kenn lu mëna du kenn kenn du ko waat mm. malheur bu ñëw na mm. ma daal di téléphoner sama rakk bi ci ess ma ne ko sa jarbaat mu ngi poste santé bu ne Mbour dafa def accident comme moom hôpital régional la ne mu yónnee ambulance ñu jël ko mu indi ko ci hôpital bi mu nekk léegi foofu ma téléphoné sama beneen rakk bu topp ci man Malicounda la ne ma ne na dem seetali ma ko après Aïda Sarr magam daal di jóg moom it mu dem Alassane Sarr magam téléphoné Mbour ci ay collègue pénitentiaire am ko mu yabal foofu nañ ko seetali rakkam après ñu indi ko Dantec ñu ne Dantec moo mën a faj rachis mu def ko 19 jours wérul sax ñu génnee ko fekk ñu ngi plâtre yaram bi yëpp biñ koy indi fii ambulance bi maa fay 10 000 bu ko wàccee fii matla bi mu tëdd ndox moo ci ne ma jënde ko cent 000 pour bu yaram bi def escar def góob yaram bi yëpp lañu plâtre fii ba nii def ci ay weñ mu tëdd fii koy jëndal couche di ko piqûre la vanex parce que da koy piqûre ba keroog muy dox samay mbokk jàppale ma ak ramaki mii nga xam ne sama doom la nit ku baax la ramaki dama koy ña ramamaki ma koy ñaanal yàlla fu mu bëgg a yegg yàlla na ko yegg ak Jules Mbaye mi ne marché parce que moom moo njëkk a génnee lii waaw Jules Mbaye ñoom ñëpp nag ñu jàppale ma mon volonté bëre indi nii pikiir nii couche ñii ay serviette lu nañu ñu indi ñu dimbale ma wax dëgg yàlla waaye nag nit ñi am nañu yéene bu doon ñoo mën a yëkkati kon jibi jóg na waaye nag lépp yàlla la rek moo mën a yëkkati waate waaye wax dëgg yàlla ñi seetaanuma maa ngi sant itam Cheikh Kouyaté footballeur seetaanuma benn yoon di sant Kéba Kanté moom daal ku lim juum maa ngi sant ñëpp sant Alaaji Mbay ndax fu mu xiire ku mu xam ak lu mu am mi ngi ñëw indi may ji bi ko sant bu baax di ñaanal ñëpp di ñaanal jibi mii lu ne la ma daan defal aw ma doom bu jigéen li muy nekk marché balaa muy xëy mooy bale sama ñaari néeg yi bomb fobeere ba mu set booylal ma ànd lal sama lal doog a dem liggéey moo nekkoon sama doom bu jigéen bañ ne ko bu xëyee di bare ñu ci biti dañ koy tooñ ne Fatou Sarr bu dee defal na ma lu baax waaye dafa lu yàgg maa ngi oo madam fay Sall jabaru président mooy yaay ñëpp maa ngi oo ñëpp bonne volonté yëpp Youssou Ndour ñëpp maa ngi oo ku ma jàppale sama doom ji ba mu dem Europe mu dem faju ji ñibbisi ndax tëraay ndaw dafa metti juróomi at ci tàngaay bi nga tëdd sa yaram yëpp di ñor di def góom say wee ñu koy rocc di faj fu ne ñu lay defal pansement mettina

am na loo xam ne sax jarul leeral parce que Aboulaye dañ koy ñaanal yàlla na suñu borom xaaraa àjjana. dañ koy ñaanal yàlla suñu borom xaaraa àjjana bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam ñëpp xam na ñooñu sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla nag lu ñu dal si abulaay ba ñoo dalaat ba ñoo dalaat si jibiyaata muy ñun ñëpp ñëpp muy waa Pikine ak képp koo xam ne doon na war a jàppale abulaay xaar bu mu ki tamit na ñew yoy yeb dañu bañ mu dal mo tax tay ñu woote ñun ñi ñëpp pour ñew ñu dajale suñu doomu day jibi yaata di wo ñep dal pour ñu ñëw jàpp jàppale ñu waaw appel mo ngi rek wa appel mo ngi bu ma taxawee xam nga tey xel yi jugeeguñu si abulaay tay xel suñu xol ñu ñep toy nañ si abulaay dañuy ñaan rek ndimbal parce que tamit ku amul ku matlewul day ñaan force wuñ kenn waxuñu kenn dañ def fala force dañuy ñaan ndimbal képp ku su mëna ñew japp rek ñu ñëw jàppale ñu parce que tamit ñoo yelloo ndimbal comprendre dañuy woo nañ ñëpp nañ ñëpp ñëw jàppale ñu parce boo boo gisee ku su mel ni euh, suñu mag Pape Mbacke xam na ku su mel ni suñu mag Pape Sarr ku su mel ni Ndooy xam na ku su mel ni moo taal ku su mel ni ku suñu jigéen ku su mel ni Rama Maki xam na ñoom dañuy teewal Pikine comprendre dañuy teew ñun mun nañ la ñun dañuy tëdd sax suñu laal ñoom ñooy dem di kër kër dañ leen di ñaanal jàmm comprendre dañ leen di ñaanal jàmm bu baax a baax ñu ànd ñu ñëpp ku su mel ni Pam Mbacke ku su mel ni Rama Maki ku su mel ni Mor Talla ku su mel ni kon liiru ku su mel ni ñëpp ñun ñëpp ñu yëkkatindoo dóorandoo di ñaan lancer rek di ñaan appel gouvernement bi comprendre ku su mel ni suñu yaay Maram fay Sall danga koy ñaanal jàpp si moom moo ci jàpp bu baax a baax dañ koy ñaanal mu gën ñoo teg loxo gën ñoo jàppale ba jibi yaata ba jibi yaata yàlla yëkkati ko parce que ñun loolu suñu loolu suñu objectif lan moo war a doon doole collectif bi mouvement bi juddu nii doole bi lan la est-ce que du doon morne 100 am na fi. Hmm. yàgg nañu ko dégg ñu seetaan. Hmm. di suñu effort bu ñu def ci Habib. waaw xam nga tey Pikine tey mun naa la wax milliardaires yi ñoo ëpp Pikine waaye xëy na tamit dañ dul dañ dul jàppalante wax rek lañ am tey mënuñoo dem kenn fëgg ko ne ko par force dañuy jox dañuy wax dañuy dem fu nekk dañuy wax dañuy dem fu nekk wax dëgg yàlla waaye tey tey geste bi dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla ñu ñëw ñu ñëpp su moom da si jàpp bu baax a baax a baax buñ jëlee si awlaay tey nit ku nekk si àdduna noonu la àdduna loolu la comprendre waaye dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla nag ñëpp ñëw ñu jàppale jibi jibi jibi aama waaw day dee dañoo doon benn say boo xam ne am na loo xam ne teg nañ ko ñun nag ñoo si des tey tey woo nañ ñëpp pour ñu ñëw ñun ñoo si des na ñu ñoo war a liggéey lu tax jibi ñaan yàlla jibi yaata lii ñu teg li ñu ñaan yàlla jibi yaata jénn ñun suñu biir mooy jibi yaata jug tey jàppale bi lépp dañuy ñaan yàlla mu yëkkatikuwaat ba dox ba dox lu mu waroon mel yëpp mu mel ko dañuy woo ñëpp ku su mel suñu gënaa kenn doom ba ñoo ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax di woo suñu ministre des sports Matar Ba ñoo ngi koy woo bu baax a baax gis nañ tamit ab tout rafet bu mu def bu baax baax ñoo ngi koy gërëm doole mu ñëw ñu woo pour mu kii ñu jàpp si. tey boo amoon kàddu yooyu wax ak làmb ngir bu mbeur teudete tawat ñu bañ ko ketal mo xam amateur lay doon mo xam képp ko xamanteni da nga daan yëngu ci lamb yeen cadeau lay doon wa suñu président Gris Bordo ñun ñëpp ñoo ci groupe whatsapp bi dafa nañ ay carte yo xamni ay carte yo xamni ñun ñëpp ñoo ci ku su mel suñu mag Modou Balla Gay Eumeu Sen xam ne ñoom ñoo Boy Niang ñoom ñëpp ñoo ci tay ñun suñu bit ñun ñooñu nekk si loolu di liggéey parce que Gris Bordo bo gisee dañu abulaay mo ñu taxaw di expliquer parce que tamit loolu lu dëgg la te ñun ñëpp ñoo ci chaque jour ñoo ñu waxtaan ci groupe whatsapp yeeg yoy yëpp Mhm. di woo tamit nak suñu ah, suñu maire Pam Ndong dama koy ñaan yàlla nako suñu borom defal jamm mom gis na nu taxaw bu baaxa a baax maa ngi woo ñëpp nañ ñew di wo ku su melni sama jigen rama makki comprendre ñun ñepp pikin ñun ñepp pikin pikin mo ñu ñor xam na ñun ñepp pikin lañ ko ñor dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla nako ko katanal comprendre dañ ko kàttanal ñun ñepp ñoo far tay bo gisee ñun ñepp ñoo far xol li nak ñoy toy waaye ñun ñepp ñoo far ñun ñepp ñoo juddandoo yorandoo màggandoo tamit tamit nit bu la bëggee nit bu la bëggee chaque jour moom lay gisee at at yoo xam ne mooy loolu tey xëy na bëggee la ba pare ñu sekk mu war ma wax ñu wax xam-xam na dañuy ñaan yàlla ñu ñëpp nañ jugandoo dóorandoo yàlla defal ñu jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm di ñaan yàlla jibi yaata yàlla na ko yàlla defal jàmm tamit ñu jàppale suñu mag Pam Mbacké bu baax a baax moom day taxaw Pikine di doole Pikine mhm. kàddu gu mujj gi waaw di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla lii ñu jugte muy jibi yaata yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ko yàlla sotti yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw alaaji mbay moom dama koy sas moom mooy lépp moom moom bu taxawee ne ñun ñëpp nañu yëkkatindoo ñun ñëpp dañuy yëkkatindoo Alaaji Mbay nag affaire bi mooñ si yow dañ lay ñaan yàlla na suñu borom defal jàmm jërëjëf